mooy këyit gi nga xam ne xaatim nañ ko ngir bëgg koo yeggee presse bi te mooy xam ne ne diirum ñetti fan dañoo décrété woon trois jours de grève mooy ginnaaw ba nga xam ne am na ak ñàkk a bu dox suñu diggante ak douane bi ci yokk yoo xam ne bëgg nañ koo yokk euh, njëg yi ndax loolu lay firi ginnaaw ba commerçant yi bañee euh, ñu nag ngir feeñal suñu ñàkk d'accord ci loolu ñu décrété trois jours de grève loolu nag satisfaction bu mag lañ ci am ndax mot d'ordre bi suivre nañ ko mboolem commerçant yi gis nañ ne ñetti fan yi weesu tëj nañ seen i boutique kenn liggéeyul euh, kon ñoo ngi leen ci gërëm bu baax baax moo xam di nga commencé ci importateur bi ba ca ki yor table di jaay yi ndi ki noonu marchand ambulant yi ba ci jaaykatu caaf bi gis nañ ne ñëpp ànd nañoo ñun solidarisé ak ñun tëj seen i place ngir ñaxtu loolu nga xam ne bëgg nañu koo teg ci commerçant yi te teguñu ko rek on importateurs yi mais mbooleem commerçant yi dañu ko teg ba ci marchand ambulant bi kon ñoo leen ci gërëm bu baax euh, ginnaaw loolu nag dangay gis ne ministre bi woo nañu woo na commerçant yi ngir sumb ay waxtaan seen diggante ak moom ngir mu mën a trouver ay solution ci revendication yi nga xam ne commerçant yi jibal nañ ko ci moom ci noonu ci la jëlee ay engagement ci ne dina def ba mbooleem li commerçant yi bëgg euh, ñu wutal leen ci ay solution loolu la waral am na yeneen waxtaan nañu war a sumb diggante ak moom ak mbooleem autorité yi nga xam ne euh, mbir mi impliqué leen impliqué na leen moo xam autorité douanière yi la euh, mbooleem koo xam ne rek affaire bi impliqué biir war nañoo seq ak ñoom ay waxtaan lépp rek di trouver ay solution ci loo xam ne du dara lu dul intérêt yi ginnaaw loolu moo tax ñu jël décision waa assise bi mooy comme kuréel moo ëmb mboolem commerçant ne moo doon décret bi nga xam ne décrété woon nañ ko dañ koy arrêté ndax bu ñu xoolee jamono ñu nekk te mooy ouverture euh, mosquée Massalik bu Jinaan bi waaj am ak ouverture des classes ndax élèves yi dañoo a jàng dañoo war am ay matériel yu ñu war a jànge te yooyu ku ne xam ne commerçant yi ñoo koy jaay looloo a ñu gis ne kon dañoo war a suspendre gun moo doon décret bi kon dañ ko suspendre euh, ñaareel ba mooy conteneur conteneur yi nga xam ne jëloon nañ décision ne dañ koy bàyyi ci port bi décision boobu moom dañ koy maintenir benn conteneur du génn lépp dañ ko fay bàyyi ngir négociation yi sumb suñu diggante bi ak mbooleem autorité autorité nga xam ne ñoom ñoom ñoom lañ ñu seqal bu fekkee ne engagement yi ñu jël respecté nañ ko ah bu boobaa nag dañuy fa dañuy passé ci vitesse supérieure bi te loolu jàpp naa ne nekkul lu baax ci réew mi ndax ku ne xam ne ne réew mi euh, bokk na ci li ëpp ci économie bi commerçant yi man naa ne ñoo ko yor ndax secteur informel bi mën naa ne 48 virgule 8 pour cent ci ñi wutum xëy ci réew mi moo leen di embauché PIB bi 41 virgule 7 pour cent la ci participé. boo génnee secteur informel bi ci participation PIB bi mën naa ne li ci des entreprise étrangère yi ñoo koy ndax benn entreprise rek boo xam ne ku ne xam ne ko ci réew mi muy yëngu ci wàllu woote ak wuyu ça bi dire que kon mën naa ne secteur informel bi moo fi nekk kon bépp décision boo xam ne jël nañ ko buy nasaxal secteur informel bi mooy décision boobu économie li nga doon nasaxal. léegi moo tax jàpp nañ ne ministre bi engagement yi nga xam ne jël na ko ngir euh, satisfaire commerçant yi jàpp nañ ne dana ko. Euh,